nañ ci bàkk quoi dellusiwaat ci album dinañ ci ñëw album bi moom ala kulli xaal dañ ciy ñëw. yéen paramètres yan ngeen di lijjanti ba tax ngeen di ngeen di ngeen di gaaw. quand je te dis que paramètre mooy depuis corona bi ñoo ngi woon confi confinement. te dañuy ñëw pour indiwaat confirmation. est-ce que comprendre. da confirmer quoi. waaye tey li nga xamante ni mooy euh, fa ndox daan taa boo fa demee danga fay fekk tepp tepp. est ngeen a dégg ku juum ba ni lu Brick mënuñoo rap wala aay ñu lu ngeen di confirmer. waaw c'est-à-dire que ni man ci sama bopp mën naa dem bay xalaat naan est-ce que mënati naa loolu à tout moment ci sama bopp laa koy xool di confirmer sama bopp naan ko kaay mën naa. donc maa ngi ci dimension boobu en fait. loolu ngay toog ba mu yàgg nga am ay moment de doute quoi. yee taxaw ne est-ce que man aay naa. ci biir loolu nag. il faut déglu sa bopp. Hmm, bon damay déglu sama bopp mais ba tey damay xeeb. c'est-à-dire que à tout moment damay nekk di gën a forger sama. perfectionniste quoi c'est ça donc loolu moom moo nekkoon moo moo taxoon moo taxoon ñu ne il foog ñu defaraat paramètres yooyu en fait xoolaat jéem a update action yi taxaw parce que on est resté un bail moment sans pour autant génne benn affaire mm-hmm. donc tey bu ñuy génnee dafa am nenn noo xamante ni dañ koy génnee pour xamal ni fiñ koy tibbee du jeex te fiñ koy sotti du fees mm. mieux ko rek ñu def ci suñu devoir loolu moom moo nekk lu tax tey lu Brick nekk di di di def mel ni ay ginaaru pondeuse chaque jour ñu ñu neen benn. donc euh, usine chinois buy defar daal. yaa ma gën a nëw. donc chaque jour ngeen génne pondeuse. c' est parce que comme rek euh, système chinois la système chinois je peux dire parce que tey seen business boobu ñoom quantité lañ lay jaay avec benn somme boo xam dañ ci am seen bénéfice donc ñu nit système boobu lañ la indi rek jox la quantité boo xamante ni dinañ ci am bénéfice mooy di nga ne ah gars yi yàlla seen yaram tàng na xam nga sénégalais mooy important et sénégalais je mooy koo xam ni day toog ba mu yàgg bu la déggatul ne la waaye sa waaye yow fay nga komp nga nga génn temps temps temps tegle mu ne la eh, sama gars yi seen yaram tàng na de dégg nga léegi nga nga accéléré mu ne la waa mais lii ëpp na donc à la fin yow. moo tax yow do what you do and the life goes on loolu rek moom dañ koy at kaw mbay mbayaan la wala ego trip la écoutez attentivement les paroles. Nous, on a vu un petit cousse essayant euh, la main d'un gars très très géant. se retrouve juste après. Euh, Taco Fall bi ñu bu njool bi nag wax dëgg yàlla taxul ngeen woy ko xëy na da ngeen koy sàmbay mbayaan non yow lay laaj. non non <coughs> du sàmbay mbayaan parce que Taco Fall doomu réew bi donc da ngay gis benn artiste américain bu tuddee son Michael Jackson nga tu gis beneen artiste bu tuddee son nam euh, nu ma tudd tey Neymar wala waree donc ñun tamit benn instant bu fekkee ni bu ñuy def son mënuñu jël suñu doomu réew yi parce que tey ji am na sax ay sénégalais yoo xam ne xamuñu Taku Fall te à travers son la ñuy ñëw naan waa luy Taku Fall kii ne la nii wala nii. am ñoo xamante ni xamaale nañ ko si xamale ni doom sénégalais la bu yor drapeau bi di représente fu ne je me rappelle vidéo bi njëkk jot ci maamam lañ ko jot mu naan ko tàggu faal sa sa kii nu mu tëddee xale yi xale yi ak lu yi ñoo lay ñoo lay wayal benn son foofu affaire yooyu expliqué di ko envoyé vidéo ñu envoyé ma ko ma ne ko ah kon affaire bi mujj na am ampleur bi te ñun ñu ngi ko jëlee woon juste ci benn affaire mooy teg nañ géem ci loxo tàkku faal te après dañ ko confirmer si néegu góor mhm. si teg nañ géem bi si loxo tàkku faal ku yóotu toog dinañ dégg si néegu góor parce que c'est le son quand qui a été on va pas regarder la vidéo on va juste prendre mot par mot parce que les Sénégalais sont très susceptibles par rapport à ce qui est des pics des classes kii nga waxal kii nga waxal mais on va y revenir Taco Fall c'est quoi l'histoire da ngeen a woo téléphone Taco Fall ne ko dañ lay woy ñaata la leen Taco Fall may bi mu déggee woy bi raconte-moi l'histoire Euh, non je peux dire que nekkul question de may wala dara tey sound bi dañ ko tuddee game au niveau quand quand on dit rek dañuy def allusion à ce que ñu nekk ci game bi boo seetloo vidéo bi sax dafa wax ci terrain basket lañ ko defee donc ñan ñoo nekk ci haut niveau bi tous ceux qui sont là-bas à l'NBA tey da ngay xam ni ñu ngi ci NBA yi ngay xam ni ñii nii ci game haut niveau la ñu nekk tey ñu xool kan moo fa gën a njool suñu xoolee ci NBA ba mu tey dañuy gis ni Taka Fall moom mooy ki fa gën a njool loolu moo waral tey sound bi ñu xam ni tey à travers les techniques bi nga xamante ni moom lañ utiliser ci rab bi mooy que ni dañuy jéem a yéegal niveau bi mu kawe. mooy technicité bi nga xamante ne rabe nañ ko affaire bi dina kawe comme tàkkusaan te loolu ku nekkul ci game au niveau bi doo ko mën mën nga nekk comme par exemple benn course wala joueur bu bu bu bu qualifié gul en fait ci côté game bi ñu nekk maanaam métaphore la boo xam ne moom lañu utiliser léegi ñu xool sound bi tuddee ko tàkkusaan donc loolu moom moo tax ñu tuddee ko Tàkko Fall à travers les performances qu'il est en train de faire ci côté Celtic affaire yooyu noonu ñu koy shout out de passage donc loolu moom moo tax. bi mu déggee sound bi ah, mu déggee sound bi il nous a écrit il a il a liké donc aussi ñu ngi ko ñu ngi koy remercier ci modestie boobu ci côté côté côté loolu noonu mu ñu defal quoi c'est ça mais. mais Tàkko Fall de de jour NBA à. Euh, le plus géant du monde du tax tëb pour mu dugal panier ñaata la joxe. <laughs> non ñun ñun ñun ah. <laughs> ñun nag wax dëgg yàlla Tacko Fall jox ñu xaalis parce que ñun esprit bi ñuy doxee ñun moom lay doxe kaana la parce que nekkul dañuy ñëw rek ñu lay woy ngay jox ay affaire te lii woyuñu ko ko on a juste utilisé le nom pour def benn. utiliser ko pour benn métaphore game au niveau day kawee mel ni Tacko Fall daché loolu kese la mais du du xaalis du lenn. donc ñi may gis ñuy wax ne waaye Tàkku Faal daf dañ ko way pour mu jox leen xaalis wala dañ ko way pour mu euh, kon da ngeen utiliser turam rek pour pour métaphore. waaw mais aussi bu xaalis bi ñëwee duñ ko bañ de. <laughs> Eh, ñëwee si vous cherchez un défaillant vous leen attraper <laughs> c'est-à-dire dawul coow quoi waa ji. <laughs> tàkku ñun ragaluñ lool de dëkk nañ saako yi bu ñëwee tamit duñ ko ragala ah. bégee. un défiant de haute catégorie de takku falk da koy njoolal ba mu njool alors j'ai fait une émission ah benn gaynde bu ma mos a invité bu daan moo géet muy dem si gërëm dit mu ne waa mooy Akhlou Brick ñu ngi nii way takku fal Dip mu ngi nii way Youssou Ndour xaw ma kan way kan mais man ma way moo géet ngay indi problème ma ne ko non c'est que yow ñooñu jubluwuñ si loolu donc vous me donnez raison euh, vous me donnez raison du Sambay Mbayaan du affaire de géwélisme euh, rien contre ça aussi pour les gens qui le font et qui ont la légitimité de le faire euh, mais dans ce cas de bu wiw lu ñuy wax euh, name dropping bu ànd ak ay euh, figure de style bu ñuy wax euh, nan la tudda ci métaphore dañu utiliser njoolaayam ak kawewaayam bu tëbee ba yor loxo bi ci kaw nii personne ne peut y toucher il faut nga tollook moom pour nga yegg si niveau boobu moom la ñu waral muy Taco Fall si ce que vous venez de regarder alors on enchaîne avec juste après la sortie de Taco Fall vous avez sorti quoi. Añaaje moo ci topp. Añaaje du séeréer. séeréer la xam ngeen bëgg a wax ci Añaaje. sant man seen laa sant ngóor ak la. donc añaaja ndax mu ngi baax donc loolu moom mooy añaaja parfois di nga romb séeréer ne añaaja mooy la ondik rek yee donc yee ñuy ñuy shout out séeréer bi leen ci bégee sauf sauf Adji Sarr <laughs> yee ñu ngi leen di bégee yéen ñëpp ñëpp ñëpp donc aussi di leen wax ni leen sound boobu aussi euh, en même temps aussi mu ngi wax moytu ma nee naa la nga moytu ma ndax booy dugg ci man yaa que deux gore wala sacré yàlla dix problème booy dugg ci man yaa que deux dates 2 mars 2 juin dóor la sa dóor day avorté parfois gars yi comprendre. 2 mars 2 juin qu'est-ce que tu veux dire. mars juin boobu ci laa bëggoon ñëw mooy que ni 2 mars ci la fi corona dugg xam nga loolu moom. yaa ma gën a ñëw gën a ñëw merci en même temps aussi 2 juin bi moom la ñu waxoon élèves yi jàngi leen ñu dem ba école wàññeekuwaat affaire bi avorté. moo tax maanaam la boo ko waajalee soo dugg ci man boo ko waajalee day avorté soo namee dóor day avorté 2 mars la deux juin dóor la sa dóor day avorté donc loolu moom moo nekk affaire bi quoi moo tax aussi on a cherché on n'a pas cherché loin. mais jusque après gars dañuy laajte questionnement bi parce que lii lañ ci doon xaar quoi parce que artiste moom amul lu dul nga poser ko question mu mën a am satisfaction pour expliquer. Oh, mais laajte lu <laughs> yéen yéen a ngi nappaate rek ay bul dugg si man ay 2 mars mooy 2 juin ay ay ñaaja mu ngi dox ay mooy tuuma yàlla la. jéem xanaa amoon ni rab napp rek la liñ naan liñ naan rappeur ñaangalu rappeur. dama koy wax si benn punchline naan sa ñàngal safuma liiru jaar yow oh, benn da ngay dem ba ñàngal bi da reeloo quoi. nañ ñun ñëpp fi <laughs> moo tax ñun après. donc ce qui veut son là da di sóob rek quoi pour jàng rek. non c'est-à-dire li ma lay wax nag du dañ de cest à moom boo xamul luñ ko bootee rek mun bul dugg ci moom même sax golo sax mën na la romb.